jërë ngeen jëf borom solution di Ousmane Sonko mi ngi ci problème yu rëy yu mu war a lijjanti bi leen les échos benn journaliste bu jigéen bu ñu naan Michel Damsen dëkk ca Londres moo bind ab article boo xam ne wax na ca ne Ousmane Sonko da doon jëflante ak waa Tullow Oil di benn société bu yëngu ci wàllu pétrole ak gaz te jëflante ba tegewuloon ci yoon yéenekaay bi dañu xibaar boobee Les Wood mi directeur financier bu Tullow Oil dëggal na ko dañoo déggoon ak Ousmane Sonko ci ne danañu ko jox cent quatre-vingt-quinze mille dollars ngir mu seereel leen seen wàllu campagne ci yooyu la jamono contrat Rufisque offshore la société ba bëggoon Abdoulaye Wade xañoon leen ko joxoon ko waa Petrotim journaliste bu jigéen bi bind loolee ca Londres bind na ne société Tullow Oil joxoon na Ousmane Sonko xaalis société ba ciblé woon ci Sénégal mu di Oxfam ak Ousmane Sonko libération nañu usman Sonko njiital Pastef dafa mel ne kusal mu jëmale kaw gudd yu ñu toll ndax am na leneen coow lu garaw lu wunniwaat lu ñu koy tuddoo ci atlas ak ndono yi titre foncier 1451 ay kayit ki dossier yu ñu signé ci mbir mi libération xëy na génne lépp ci page moom Ousmane Sonko mi ñuy mbambaka jaaba jonge ci coow mi ngi xëy toog ci xët mu njëkk Le Quotidien journal bi dañu xalaatam moo di opposition bi boycotté woote présidentielle yi 2019 yi te suñu koy boycotté na ko ñëpp àndandoo boycotté ndoo amul ku ñu kale amul ku ñu bàyyi mu dem na ñëpp àndandoo du mooyu ko réew mi quotidien nañu waxi boycotté wootey présidentielle 2019 yi booye bu opposition bi delloo ko fa ñu ko jële woon ndax bu ñu ci duggee du leen jural jàmm xaru lay doon ci ñoom Sud Quotidien mel ne ku naan ko du mën la déet ndax bu ñu duggee ci boycotté wootey présidentielle 2019 yi daanaka dañuy arranger Macky Sall te bu ñu weddee nañu xool fi xewoon ci wootey député yi ba ko fi opposition bi boycotté bàyyi Sall ak nañu ñenn ci ñi fara ci opposition bi ci xalaatu Bougane Gueye Dany njiital mouvement gëm sa bopp ñoo daje démb ca place Obélix ci teewaayu ñu ci mel ne Ousmane Sonko professeur Amsatou Sow Sidibé Cheikh Gueye ak ñeneen ñu fara ci kujje politique yi fa la ñu lu ñu tuddee faxas nee nañu Macky Sall bëgg faxas mu jugee ci bopp réew mi ngoon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février yéenekaay bi nañu ay gilet jaune la gis ca France waaye Sall jaru fa dërëm derub conseil constitutionnel it jaru fa dërëm Serigne Mansour Sy Djamil yéenekaay bi dañoo dem na bay xamle sax ne waa conseil constitutionnel li ñu war def moo di annuler application parrainage yi te bàyyi candidat yi bëgg bokk ci wotey présidentiel yi ñi mën a bokk-bokk yéenekaay bi nañu waaye seen ndajam démb ma na la ko yàlla nëbbu ndax la fa teewoon ci mbooloo mënees na leen a wàññi mbirum parrainage yi ñu indi ci wotey ren ci réew mi ñeent ci weeru février atum 2019 yi ndax Khalifa Ababacar Sall dana bokk ci yooyu la woote enquête dina kay ngi ñuy xamal ne moo ki gaayam moom Khalifa Sall ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan nekk ci seen pexe yu mujj ngir bëgg seen waaje bokk ci woote yi direct info feeñal ay njuuj njaaje ki léexóor yu am ci wàllu parrainage yi ci diwaanu Touba benn jeune mbàkke-mbàkke moo fa jël juróomi junniy signature jaay ko ay candidat yu bari xibaar yu bari ci wàllu tàggat yaram ci yéene kay ñu xëyandool ubbi l'observateur Max da Galla bi ñu doon amal fii ci ci stade Léopold match ba jeexee jàppante bu rëy moo amoon ci diggante El Hadji Ousseynou Diouf ak Aliou Cissé journal bi dañu wes ceer ya tàngoon na jër Makhtar Ndiaye it El Hadji Ousseynou Diouf tegaat na ko ca palaasam ndax dafa taxaw ne nañu bàyyi Aliou Cissé mi ñuy critiquer te jàppale ko ci la El Hadji Diouf jugee ne ko may ñu ñeenti at a ngi sa tànk tegoo ko Sénégal li fi xew xamoo ko Pape Malick Diop ak Moussa Ndiaye l'observateur nañu budul woon ak Salif Diao lambaay ndox mu sedd mbir ngi mu jara wax ak Balla Gaye 2 fukki fan ak ñett ci weeru janvier la Gaston Mbengue ak Iyakom ñoo ko tëgg parrain bi yéenekaay bi nañu président de la république Macky Sall la moom la ñu ko tuddee waaye bu ñu moytul combat boobee lu bari ci askanu Sénégal duñu ko seetaan ndax benn télé du ko wane yéenekaay bi nañu amateur yu bari ñu bari ci askanu Sénégal li ñu bëgg di ko ñaan parrain bi di Macky Sall moo di mu jënd droit de diffusion yi jox télé yi askanu Sénégal la boo xam ne dafa singili yaayam ne da nee nañu Ibrahima Fan jéem na koo violé ndeyam waaye sottiwul